Allah.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 فمحبته صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الوالد والولد والنفس والنفيس والناس أجمعين ففي الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين والسبب في وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أكثر من أي شخص فلأن أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ألا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم بالايمان به ومحبته وموالاته واتباعه ومحبته صلى الله عليه وسلم سبب لحصول حلاوه الايمان قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان وذكر اولها ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما أيها المؤمنون إن محبته صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تذكر ومدائح تنشد بل المحبة الصادقة تكمن في طاعته والاقتداء به في العبادة والسلوك ولها دلائل ومظاهر منها تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وعدم التردد في ذلك وذلك من أصول الإيمان وركائزه العظام فهو عليه الصلاة والسلام يخبر بما أوحى الله إليه اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته والاهتداء بهديه فتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي العلامة البارزة هي العلامة البارزة لمحبته صلى الله عليه وسلم بل ومحبة رب العالمين ولذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الإكثار من ذكره والصلاة عليه كلما ذكر والدفاع عنه ونصرته والذب عن سنته إخوة الإيمان لقد سطر السلف الصالح أروع أمثلة في محبته وأظهروا أبهى صور في تطبيق ذلك ففدوه صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات وعظموه في السلوك والتصرفات ولم يتقدموا بين يديه في شيء من الأقوال والمعاملات بل عزروه ووقروه ونصروه في جميع الأوقات وكان إذا تحدث إليهم كأنما على رؤوسهم الطير لما هم عليه من سكينة وإخبات أخني تيجن الله سبحانه وتعالى ويسألني عن نبي منكم محمد صلى الله عليه وسلم الله عند كسيدو نيما جدي وأن نبي منكم محمد صلى الله عليه وسلم أخني أي كبا li manan ka hungo po khore tonto khore be ga tikkiti hadamare me li manan ka hu kenina faren kanu sallallahu alaihi wasallam na faren kanu sallallahu alaihi wasallam fi yani awajibin te yani muslime su kam musulmi su kam an na faren kanu nan kotan na kotan lemme an charanu dunasu na faren khanuyen kandan di kwen chukane dunasu khanuyen kane manen chigi waga faren khanna sallallahu alaihi wasallam akhanuyen ganyo kam mawajib na togoti khairi su oga nogo bal oranta khairi kita duna adola khayman chan kota ganti ken khairi gama dangit faren kitte sallallahu alaihi wasallam oranta kisini alla yangan qate warante jofene alla nema alla hinne warante jofene ogoma faren kanu sallallahu alaihi wasallam ogoma dangiti fare sallallahu alaihi wasallam nan togondi tey na yaxa farenga sallallahu alaihi wasallam wona kande a kandeyenga sallallahu alaihi wasallam bal faren xanu ye limananka xuna katta daxa min kitta comment kita angama faren ña xanu allah xanu adi fare sallallahu alaihi wasallam nan qotu fofo si farendi kenya ko sallallahu alaihi wasallam nanti fini sikino kenga na yi komebe ay limanan ka hon da min kita ay kappa fi fana be agir ko allah khanuye aro annabi me ara fare sallallahu alaihi wasallam anna yangi ya mulla nan qotasi akhini فارن قانوني صلى الله عليه وسلم أغنى كو دغامي فتان أغا كو نيراقت ما دغامو أنا ميني وانا سوغين تشوغو نانتي النبي ني محمد خانوي صلى الله عليه وسلم اونو كي تونيون كو اناتي اسكي كيمبي بل النبي ني مي خانوي صلى الله عليه وسلم اوري اني أنا توني تي النبي ني مي صلى الله عليه وسلم أنا كاندي اكاندي أنا يا دونا يا خمره امبريه angal lambatiu anyangal halanchi fare sallallahu alaihi wasallam angana ny al halasi anna fare nya duranga sallallahu alaihi wasallam ya khimere angana ny yigene angana ny terene angana ny khobene angana ny fosu de berni katanga de berni anna fay annabi nyimme sallallahu alaihi wasallam armanenya atere kantere kille sallallahu alaihi wa wasallam idan akhini annabi nyimme khanuye sallallahu alaihi wasallam taguman tagumancuwan nongo hada hadamarin me yelli faren kanu en ngana maga sogo sondo mebe abangena ante kempene digame agana maga sogo sondo mebe atagumancen bangena arante mukini allah ndi kenya allah sunnanyan kenga subhanahu wa ta'ala wagana khar duna dum biriye ke fay kundu serenga na kebe khanu kharaga ma ko ngana ngi menan tinke ke mulla annu tunu adiga munga anyamugo anyangal halani abangena ndanga e surtout faren xanuye sallallahu alayhi wa sallam kellante xempene digame bane arante xempene tan nanta nin con lemeña an xawa bakka gollu ñan xawa tagumancu an xawa koyni aga bangandinoɗanga a fi fanangeni keɓe ken neya digame sugana jofanga nanti annabi menti sallallahu alayhi wa sallam a jaabi faren jaabi sallallahu alayhi wa sallam anta digame jokkey antan hakkilellondini kenga nanti ke digame aɗo hakkilenti telle dome keɗo kenci telle dome ay fo sugo jofe kattanga nanti annabi ñimme yani ko sallallahu alaihi wasallama an cakkeya an togoniteneya nanti ke giri fareña sallallahu alaihi wasallam an gana togonite manen batta an na golin tey an na golñantey keya manen cigi na togote allah annabi ñimmen kaye kattoye aga fo sukongo wahyuñan ko allah gir ko mogonɓe surati najm aga fo sukongo anti digamri yonkinnungu aga keɓe kongo wahyuñan aga gir allah bange subhanahu wa taala fifillandi kenni na fare nyamari khan numbotu sallallahu alaihi wasallam anna fare nyamari khan numbotu sallallahu alaihi wasallam faren khan weni kenya igana tanda nanti faren de o nyamari kiya maga sigi nanti anga tirindindini sunna yani ba mustahabu nyan kundu faren chahabani ni kundu ya ira sawe katti ina me sawa katti golle ke nyangenga imula na faren nyangol luntu anyangal hala puri ina ya ka faren sallallahu alaihi wasallam ikanden kat faren kandenga sallallahu alaihi wasallam bal allah dali subhanahu wa ta'ala yel khaga allah mulla subhanahu wa ta'ala khar faren batu khabeti do faren digan khannunga khabeti katanya bari khannu khaga na kenya allah na khal khakhanu ala khafirge sa junu wuninga idan akhini faren khannu yen mane sallallahu alaihi wasallam wana beti faren sallallahu alaihi wasallam nan beta sunnanga na sunnan qara na to warante betine oga ma sunnan qara oga ma khanida sunnan sallallahu alaihi wa wa sallam kenyan cigi akhini sorofono be ne ga dangi fare salafu salih dilli sahaba ni ndi fitin wogini ibrahim pa ona nyina fare khanu yenga ma fagi sonde mun era kembanga ni bangi po frampre angini siran qara angini iswar qara an kawo fim bana walla ini kammo bal igoni iri saro non kutime do mane do annabi ñimmen batte sallallahu alayhi wa sallam abdullah bin ubayya bin salul agir digam mayan digam buren ko fare nanga sallallahu alayhi wa sallam e gani gilli gajal laxenga nan togana jofe medina inshallah maga bange koni sere xoran koni soro raxenga digame ke ga jofe remmenga toxo ñan abdallah a sigi faben kani kille medina roxe a tante rono ma annabi ñimmengana dungan danganan tan naro axa sere xore ñañi medina noxo ma fare ñaga dungen kini nanti faben naro ana wara lomedin no kena sara nanya aka siremo nyinongo asira sironta go nyana na sironta go ti sara nan koto abdallah kati isara na ke kun khagir ke digambure ko fare nang sallallahu alaihi wasallam ar fare pesi isara na akhini ثابت بن قيس رضي الله عنه سراني كمبر أن دادقام الله أرخان قورين يكني أرامي دقامون أرامي مولين دقامون الله آية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي خابين قتوني تألا خم غاد خدني متفارن خد صلى الله عليه وسلم أتاقو كنو أتي كن هلكي الله أركين كوي كن قارن تملين دجامون أما بقو أرحقتي جامري كت فارس صلى الله عليه وسلم فارن داتا غل من تريندي سعد بن معاذ أتي ما ننتجي ما ننسابر أتوي يا ما خا أخنتي دوا أي أتي ما توي كنو a daga ka te arni aga alesmante asunonte ati manenya artunde nanti ike nga i halaki na tokote allar ke yankandi i kharante mul ke dik aya yanki kenya ari artunde fare nga sallallahu alaihi wasallam nanti thabit nanti ken halaki i perli iken na jahannam dunkenya faren taranga sallallahu alaihi wasallam بل أتوندي هو من أهل الجنة أكين كبا الجنة دونكونيا دوكي خانوية بي كي دوري بي كنيا سنة مكاتي عن نبني صلى الله عليه وسلم كي نيانتك ساعتي كم بري وغايا مولانا الجنة دونكي نري أغاترين نيني يا خين كم أنت ثابت أفاين الله غندو قوم دي صحابة نافارين خانوية لو سنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد بقي نيسانتي الله سبحانه وتعالى جلتي ينتي صلى الله عليه وسلم di الصحابة ينتي أكواكر ينتي عليهم الصلاة والسلام بقي بقي ينتي بصلى الله عليه وسلم dafa nekk lu am solo ci gëm-gëmu doomu aadama jaam ji mënul gëm yàlla subhaanahu wa taala te buggul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buggeel googu mu jiitu lépp gannaaw bugg yàlla subhaanahu wa taala loolu dafa nekk lu war ci jullit mu bugg yonent bi buggeel boo xam ne sut bugg boppam doomam ay waajuram ak àdduna yépp comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax lu tax bugg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci gëm-ngëmu jullit ndax lépp lu ñu am xéwal ci àdduna xéwal ëppulul lu ëpp lislaam ci loxo yonent bi la jaar sallallahu alayhi wa sallam nit ki munoo am xewal yàlla subhanahu wa taala yërmande yàlla subhanahu wa taala nga musulu ci mbugal yàlla subhanahu wa taala yowmal qiyamah ludul nga jaar ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko roye ko sallallahu alayhi wa wa sallam nit ki ngir mu am banexu gëm gëm munu ko am tant que bugg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam saxul ci xolam loolu tax yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ñetti nga foofu nit ki munul am bànneexu gëm tànk yooyu nekkul ci moom tudd na ci lu njëkk mooy naa nekk bugg yàlla ak yenentam sallallahu alayhi wa sallam la loolu jiitu sa xol bépp mbugal bu nekk ci kaw suuf mbok yi buñ waxé bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ak sopp yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam du ay wax yo xamné dañ koy wax mbaa ñi toog dajale wëy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi jàng ay wëy yëkëti suñ loxo ne askay kessé du lolu ay jëf la ay mandarga moo ko wen ndax nit ki mirum aduna sax bo buggee dara nga fonk ko lolu day fën ci say jëf jarul sax nga kay wax nit ñi man li bëgg naa li ndax ci say wax li ngay wax li ngay waxtane ak li ngay dox yépp da kay woné kon ku bëgg yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam da fo a feeñ ci say jëf ci sa dundin li ci ñëk mandarga bi ci ñëk moy lépp lu ñëw ci yow ñi lay yenen tibi mo wax li sallallahu alayhi wa sallam da ngay dëggal do ko weddi mukk do jiital ci xel buñ la waxe yonent bi wax na lii sallallahu alayhi wa sallam nga ne lii ay hadith la waye li àndaluk ak xel dedet ku gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxam ñom ci yow waro ko weddi dang kay dëggal ndax mbokk yi ñun ñi ñangi te ci walu science ñi ngi gëm ay wax yo xamne waxu philosophie yo xamne ay siècle siècle la amul ben chaîne de transmission bo xamne mën nga ci wéru waye waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nek lo xamne ñi xam xam-xamu hadith du kenn ku jóg rek mun nga wax ne yenent bi wax na ni sallallahu alayhi wa sallam def na li jëf na li dedet dafa am ab xam-xam bo xamne fofu lay jaar li ñi wax isnaad la tax Muhammad bin Sirin ne al isnad min ad din sen de transmission yi dafa bokku ci diine lu dul loolu lu way neex jóg wax ne yenent bi nee sallallahu alayhi wa sallam munoo wax mukk ne yenent bi wax na ni sallallahu alayhi wa sallam ndax tegoo ko ci chaîne boo xam ne nit ñi xam nañ ko mun nañ ci gëstoo xam ñan ñoo ko wax ñan ñoo dëkk ak yeneen ci sallallahu alayhi wasallam ñi topp ci ñoon ñi jël ci ñooñ lépp loo xam ne nit ñi dañ ko càmbar ba xam ko kon bu fekkee ne ñun ñi ngi gëm ay wax ñoo xam ne ay philosophe yoo xam ne presque ay siècle siècle ñi koy jàngal ñi koy gëm te loolu amul benn chaîne boo xam ne mun na la jokkool ak ñooñu bu ñu la waxee waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga teg ci baat jiital ci sa xel loolu àndulu ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñaareel mandar rek mooy lan ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa day feeñ ci say jëf da nga koy ci ndigal lépp lu la digal doo ci teg baat doo laajte ni doo ci teg wax lii sunna la lii la du waajib du kii lépp lu mu wax lu mu ñu digal da nga ciy topp la sahaaba yi dundee salla radwanullahi alayhim boo buggee yonent bi sallallahu alayhi wa mooy da nga koy roy ci sa dund nan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan jënde nan la daan doxee nan la daan tëdde sallallahu alayhi wa sallam nan la meloon biir këram nan la daan julle lépp da nga koy xam yonent bi sallallahu alayhi wa nan la doon def pour nga roy ko gisu mbirum àdduna nit ñi bu ñu romee koo dañ koo dañ koo sob sob bugg ko da ngay xool lépp lu muy kii nu muy solo nu muy watoo nu muy kii yépp dañ koy dañ koy roy kon ndax loolu kooku lañ jël kooku lañ def seen modèle ku def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa modèle def ko sa royukaay da nga koy roy ci bépp ci bépp fànn ñetteel mbir mi mbokk yi mandarga bi wane ne nit ki jullit bu buggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy fu mu toll day wax wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxam rek lay wax bugg sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek lay wax fu mu toll day julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ko fàtte xelam tout le temps mi ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du benn bis rek la ñuy jël jegleel ko ne jour bii la ñuy màggal yonent bi xamal defal ni déedéet loolu dund jullit gi la fu mu toll da war a xalaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu wax ndax ñun lépp lu ñu am xéwal lépp lu ñu am ci lu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy sababu gannaaw yàlla subhanahu wa taala ci loxoom la jaar ñëw ci ñun kon kooku mënuñu ko fàtte dafa war a wax bokk suñ dund ndax booy julli yeneen bi mooy nekk sa xel booy ne allahu akbar da ngay xalaat moom nan la daan kabbare booy sujud da nga xalaat nan la daan sujude booy saraxe da nga xalaat yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nan la daan def loolu mooy bugg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam roy ko ci lépp di koy tudd foo tolloo mbokk yi loolu tax ñi baax ñi passé saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee seen dund ku jàng histoire da ngay xool ñoom nuñ bëggoon yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jéggi dayoo dañ ko wane seen jëf ibnu umar radiallahu anhu kenn ñëpp a xam ne moom dafa bokkoon ñoo xam ne dañ daan kenn gënu kaa bëgg yonent sallallahu alayhi wa sallam ak roy yonent sallallahu alayhi wa sallam même bu daan tukki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu daan toog di noppalu dafay bu fa eggee day toog noppalu même mbir yoo xam ne parfois du waajib du ci jaamu yàlla da ko topp ci bépp fànn ibnu umar radiallahu anhu thabit bin qays kii benn sahaaba yonent la sal ridwanullahi alayhi aya bi laaya bi bi mu wàccee ne bu len yekati sen baat ci kaw baatu yenen bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa nekkon ko xamne munu won wax ndànk aaya boobu bi wacce dafa tit mu jaxle ne man alakuna na dugu safara ndax man ni may waxe ndax aaya bi ci man la wacce munu mo wax ndànk mu tok kërëm munu won gën jaxle jaxle nek ci jaxle bu metti nek ci tiis yeneen bi toog ay fan gisu ko mu laaj dëkkandoom Saad bun Muaad ne Thabit lu ko dal mbaa daf feebar mu ne ah yëguma ko mu dem seeti ko fekk ko foofu bi ko laajee mu ne man li aaya bi bi mu wàccee loolu laa jaaxle ndax man moom jeex na nakk naa ku ala ku ku perte سعد دلت ينتبي صلى الله عليه وسلم خمل كلول نا كي نينا موم مومتي نيتو سافر لا ليغي نдах موم مونول واخ ندانك تي يالا تري ناني بو ني واخ ناني نيكاتي سون بات سا كاب ينتبي نكو خمل كو ني مومتي وا الجنه لا نبوك نдах نم بوغي ينتبي اك نم فونكي ينتبي صلى الله عليه وسلم ام نيو خامني بي ينتبي تخاوي سين باي تخاوي ñi jiital yenent bi sallallahu alayhi wa sallam abdullah bin abdullah bin ubay bin sol dafa wax bàyyam du dugg moo jiite woon munafiq tant que yenent bi joxul la autorisation ko dugg medine te kenn gënu koon fonk waajuram balaa muy wax wax jooju yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee kàddu gu ñaaw jëm ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam da kaa tere dugg medine taxaw foofu ne du dugg mukk ilan mbokk yi lii mooy bëgg yenent mooy fonk yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ci gën a góorgóorlu def bu bu mu ko bu mu yem suñ suñ suñ làmmiñ ñi koy wax kese ne nekk loo xam ne si suñ dund la bokk si suñ jëfe la bokkoon bu loolu weesee mbokk yi nañ xam ne euh, jamono yi ñu toll ni dafa doy waar lislaam daa tumuranke ku jóg am loo wax loo xam ne day metti jullit ñi تيري الله سبحانه وتعالى اكبرم جي سبحانه وتعالى جمم كو جوك تخاو وقتي وقت جو نياو لو خامني جوليت جيب كو گم 1 مليار جوليت تي ادونا جي اب كو تخاو نون رك جوك رك واخ لوكو نيه نده بوغو سي ولا بوغو ادونا واخ بوغو دارا لنين اك لنين لولو لون تي جيرا تخاو لا بو باخ نون واخو نيو تي جيم گوغو و خامني دون تي واخ نده كو نيك دا ام لولو لولو موتيفي دوغو مي داني واخ تي رووم ñi jité réew mi nañ jàppale ji diine gi jàppale l'islam baña may nit ñi ñi am fit di tok di wax lu bon jëm ci l'islam ndax borom bi subhanahu wa taala ñom la jital jox leen doole jox leen lépp l'islam loolu lañu jàngal kenn warul fayul sa bopp boo gisee ku sàcc sa alal sax amoo droit ngay jël ne da ngay fayu da ngay def da ngay defal sa bopp justice yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere nañ ñu loolu ndax loolu bu amee ku nekk da ngay def lu la neex mun na am règlement de compte mun na am lu nekk waaye looloo tax da ko daa jël ki jiite ki nekk ci kanam ku tooñ mu teg la to teg la daan xam ne ni da nga tooñ tooñ gënul ëpp nit ñi yëpp quatre vingt quinze pour cent ñoo xam ne liñ gëm kenn toog wax ci loolu ñu am fit ku am fit taxaw di wax wax ju ñaaw di jëm loolu kon loolu dañ ci war a taxaw ñaawlu ko xam ne ne lii lu ñaaw la warul tax société bi fi mu egg ni mbokk yi nañ gën a góorgóorlu jàngale xale yi xamal leen seen diine ndax ñiy yàq dañoo bëri trop bi ñu ñi xamee xale yi xamee seen diine rek dara du leen mun a këf ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم